si leen gaaw ngeen abonné ci site bi ngeen taamu di Siweul TV waaye bu leen fàtte mukk bës kolos bi ngir leen di mën di jot suñuy programme foo leen mënti ci réew mi ak ci bitim réew